on est dans l'Octobre Rose euh, ñu ñëw fii ci maternité bi nga xamante ni mooy euh, euh, Abass Ndao di kontaan ci ñëw bi fii di wax nii Abass Ndao dafa nekk biir Médina donc ñu bari ci suñu rakk yi fii la ñu juddoo pratiquement sama rakk bi ñoo bokk ndey ak baay même Abass Ndao fii la juddoo Jim Euh, donc euh, bu ñu ñëwee fii ci biir goxu Médina euh, li ñu bëgg rek mooy que ni képp koo xamante ni autorité nga fii ci biir Médina ngay gestu hôpital yi nga xamante ni aussi ñu ngi fii muy Abbas ndaw muy pôle clinique mooy yi nga xamante ni vraiment ñoom ñoo jege biir Médina. donc suñu wareef la bu ñu joxee tey ay médicaments yoo xamante ni pour ay matelas wala quoi que ce soit pour que ñu yóbbu ko ci l' association internationale basée de Paris jox ñu ko dañu war a ñëw suñu gox ñëw jox leen ko ñu am contentement bu baax baax liggéey dara raxu ko quoi dara dara dara dara association la boo xamante ni caaxaan taxu leen jóg dimbali nit ñi rek ñoo leen tax a jóg dem nañ ci daara yi macha allah euh, ñu ñëw aussi fi nga xamante mooy suñu gox ñu gën a am contentement quoi donc dañuy ñaan yàlla lii rek moo bañ nekk suñu mujjee mujjantil gisee euh, yàlla defal ñu ko ñu koy euh, def ay at yu bari. ñu ngi leen remercier ci lu rafet li ngeen def ci hôpital bi ñëw si maternité bi fekk ay femmes yu am doom ngeen jàppale leen ci ay yére jàppale leen ci ay garab Euh, ñu ngi leen di ñaan aussi ngeen gën ko yokk bu dee mu ngi fi ngeen gën ko yokk parce que soxla nañ ko ndax hôpital bi hôpital bu mag la li fiy juddu c'est parweer ci ay bébé bëri na te moyens yi demeewul noonu soxla nañ ay appareil échographie soxla nañ ay appareil pour monitoring pour euh, topp jigéen ñi nga xam ne ñooy matu ñu mën a surveiller seen doom yi ñu bañ a loru yooyu yëpp soxla nañ ko appareil yi ñu jëlee tension yu ñuy xoolee suukar yooyu yëpp dañ ko soxla te manqué nañ ko vraiment soo leen ci ñu si mënee dimbali dinañu dina dina baax daal vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant. li nga xamante ne aussi nag moom ngeen wax ni moom ngeen soxla ñoom nañ leen transmettre euh, euh, kii bi euh, message bi bu ko defee ñoom lépp lu ñu leen mënee jàppale rek ci kàttanu yàlla ñoom ñu jàppale leen ko te xam ni macha allah soxla ngeen ko ndax fu ay xale di dajaloo vraiment du ngeen nelaw médecin yi du ñu nelaw ñu dara donc ñooñu buñ leen jàppale suñu bopp lañu jàppale suñuy sœur la ñuy jàppale suñuy mag la ñuy jàppale.